Assane ça maa ngi sant yàlla bu baax. ci sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilah. waaw bon. ci association euh, cinéma 221. waaw ñëw xol bu sedd rek xam nga lii moom bu ñu koy def fierté la Sénégal fierté la cinéma sénégalais donc. ñaata trophée euh, man maa ngi Even Prod maa ngi Marodi en même temps donc am nañ trophée fii am nañ trophée fii donc. yomb na de. waaw noonu la dañ ciy sant fii ah, noonu la affaire yi moom booy nekk cinéma da ngay cap fii cap fee ah c'est ça c'est la vie. nan nga gisee li nga xamante ne nii ñoom def nañ ko tey. waaw bon di ci di ci kontaan rek ci kontaan di ci sant yàlla bu baax parce que tey jii bu demee ba képp kuñ ci mënti primé fii sunu bopp ñu dañ ci gis sunu bopp parce que suñu cinéma la bu ñu waxee dañ naan cinéma sénégalais te bu ñu nee cinéma sénégalais dañ naan tous les acteurs tous les artistes donc tey jii fierté la ci ñun suñu xol sedd nañ ci kontaan nañ ci di ñaan yàlla suñu cinéma gën a jëm kanam incha allah voilà en quelque sorte. ok euh, la retenir parce que nee nga am na ko lay xaar bàyyi ñu baañ la dem. merci beaucoup kontaan naa quand <laughs> euh, voilà euh, ñoo ngi am fii Prince Majib ak Abou ñoo ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di jaajëf. nan ngeen gisee association cinéma 221. alors c'est une très belle initiative bi mooy deuxième année bi et sa prouve tout simplement que cinéma Sénégal mi ngi avancé. te ñu ngi jaajëfal euh, l' euh, association cinéma 221 di ñaan yàlla genre événement yi nii yàgg di fi am et que ñun ñi nga xam ne tey jii peut-être on est au devant de la scène on n'est pas les plus importants mais on est au devant de la scène euh, ñu gën a góorgóorlu parce que ça nous encourage à aller de l'avant ñu xam ne tey jii nii cinéma c'est c'est c'est un grand art et c'est aussi un métier day tax ñun ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñu gën ci farlu Euh, Majib euh, en tant que euh, influenceur nan nga gisee série yi saaga yi est-ce que c'est normal parce que sénégalais yi ñu ngi kaas loolu lan moo si say kàddu yi. bàyyi gars yi ñu personnellement je sais pas ce que je peux dire là-dessus parce que en fait euh, qu'on le dise qu'on le dise pas on sait que les injures les insultes dafa bokk ci ci ci ci du mën a fépp la nekk. mais saaga foo génn fekk fa peut-être. loolu du ay saaga sax. non non man. la ay ñaanal la mime mime. ay la nga ko gisee doo gisoo ko saaga. gisuma saaga fan. personnellement bàyyi ma ci xel. Euh, ce que j'ai regardé des fois mu am yu rëcc nag <laughs> mais mais ci la bokk ci la bokk. Euh, ngay wax sénégalais si loolu ci kaas bi nga xamante ne ñu ngi kaas loolu tey jii boo leen doon wax lan nga leen pour wax. et pourquoi c'est seulement moi qui parce que yow yaa nekk si. ah prince prince wax prince tontu ci lan noonu ak karma ñoo nekk nii ci euh, yi ni ñuy kaase euh, lan ngeen di wax sénégalais en fait bon en fait comme l'a dit Majib tout de suite ma seetluwuma loolu en fait je pense que jusqu'à présent on ne dépasse pas les bornes D'accord. Et qui dit cinéma aussi dit qu'il faudrait aussi franchir un, cap, je pense. Parce que Nico Touabi dit jouer. Parce que j'ai un problème. tubaab yi su ñuy jouer ça ne vexe pas lorsque nous on joue ça vexe c'est vrai que dañu. c'est la même chose ñun ak war a confronter wu ci culture bu ñu bokk. mais ba léegi gisuma ci ku dépassé donc y' pa pas de quoi fouetter un chat quoi je trouve. et suloo saaga yi ak yenn sol yi nga xamante ne ni mooy loolu ñëpp ci kaw la. bon saaga gisuma ko wax dëgg yàlla. sol yi waaw col bon. d' accord mais bon je soluñ fi lu fi gars yi solul. lan loolu ngeen di wax. ñu wax parce que waxoo dara. non fii ay saaga moo fi amul parce que gars yi day nekk di miime rek quoi dañuy miime noonu la demee mais xam nga ñoom bu ñu jàppee ne day saaga day saaga mais mooy loolu quoi. mais ngeen jégal ñu su fekkee dafa ay par rapport à cette initiative là c'est que c'est top et franchement. il faudrait app, euh, apporter notre pierre à l'édifice moo tax ñun ñëpp ñu ñëw fii et franchement encourager cette initiative la parce que lii la ñu am en fait et c'est ce qui fait développer l'industrie du cinéma au Sénégal euh, à l'instar des grands acteurs comme ñi lan ngeen di wax seen euh, moroom acteurs yi c'est de góorgóorlu gis nga mbir soo si nekkee da nga koy suuxat suuxat bi xam nga mooy lan da nga ciy wu da xool noo yéegee comprendre nga et je pense que chacun de nous aspire à atteindre un certain niveau te incha allah yàlla nañ ko yàlla may. merci en ñoo bokk li liñ bëgg quoi nañu taxaw di jàppalante mu mu gën a neex quoi. booloo doon benn. waaw Sénégal jëm kanam. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ok ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. maa ngi si nañ la ah, maa ngi fi nag lan ngay wax ci prix bi nga xamante ne ni tey euh, gagné nga ko trophée bi. Euh, trophée yi ba du pour man benn bi pour Ibrahima Mbaye la Ibrahima mbay Thié muy sama sama jumeau sama seex la mi ngi doon ñëw ma malheureusement otoom dafa pan ci yoon bi donc jotul mun a yegg si mu woo ma ne ma naa ko jëlal prix bi beneen prix bi pour Rama Diagne la maquilleuse bu mag boo xamante ne man ba may def. Euh, Euh, madame Bouret moo ma maquillé ba léegi mi ngi continuer di maquillé moom lañ jox beneen prix d'honneur bi moom aussi moo am empêchement demandé pour ma jëlal ko prix euh, lan ngay wax ci association cinéma 221. Euh, xanaa di leen remercier di leen encourager ci initiative bi ñu def mooy di di di reconnaître travail yu acteurs yi ak techniciens yëpp di def série di liggéey vraiment ma leen di remercier bu baax et puis di ñaan affaire bi continuer jëm kanam ndax liggéey ñu liggéey dafa neex.